ubbi naa xëy naa liggéey ba ay 10 heures. jour procès bi mooy le premier juin. waaw le premier ba ay 10 ah. na après ñu ne il paraît que gars yi ngi def ay ay ah. ci laa gis gars yi te ci laa sama place dem sama kër. toog waaw ba demee ba ay 20 heures 50 yooyu lañ ma woon ne ma booyaa ngi daaj place bi. booyaa ngi daaj place bi. waaw mu ñëwee aussi fekk naa waa koñ bi ñëpp ñëw nañ vraiment jàpp si ñu jéem a xeex ak ñoom bañ dem. ñu dugg ci a xool nu ñu jëlaate bagage te avant ñuy song am na ñu newoon di bokkoon ci ñoom ñu newoon ci biir mbooloo mi di comme si di la jàppale mais c'était juste pour xam exactement lu fi dem parce que ñu ngi posé des questions ndax caméra yaa ngi doon doox jël nañ fi machines yi ndax jël nañ ordinateur wala yooyu ci bi ñu leen rep quelque part ñi ne ci foule comme ils pas compris il les a dit ñoo ñu ne kon ñu ci biir fekk ñi ma doon jàppale ñëpp fekk songu ñu xeer ay jaas yi ñëw bi ñu ñëwee li a def mooy daw toj caméra yi ça veut kon ñoom xam nañ ne caméra yi ñu gàttali ci lañ dawee ñun bàyyi leen parce que dañu naroon rey ci lañ dugaate nag gën a joog jël na li fi nekk boo euh, pour le pour pour le moment je ne peux je sais pas encore mais je sais que jël nañ fi lu bëri parce parce que machine yi y avait des ordinateurs y avait des téléphones y avait du matériel électronique mm. y avait beaucoup de choses vraiment non minim non xam moom c'est sûr que machine yi moom ça fait plus de deux millions c'est sûr machine yi rek ça fait plus de deux millions parce que ay MacBook la woon te kii xam na ci dara ay Mac yu yu cher la woon ah. matériel de l'argent parce que dama doon defal transfert ah, yóbbaale xaalis bi kees bi lépp lañu yóbbu ah. a merci beaucoup merci euh, boo doon lancé benn appel ci président de la république wala ci beneen euh, beneen euh, beneen ci opposition camp opposition non man daal que ça soit côté du pouvoir de côté de li war a def mooy fexe appeler la jeunesse ci ci dal ci retenu ci dal ci jàmm nguur kenn du ko yor ci fitna hmm. donc muy deux côtés yëpp nañ jéem a toogaat ñu xoolal hmm. dellu seen xel parce que la problème en est population bi le peuple ñooy sonn ci affaire yi mais les riches ne sont pas encore concernés ña tëdd seen kër yi yëguñu lu xew c'est nous qui vont payer les pots cassés su mettee ñoo koy yëg su neexee ñoom ñu lekk ñu bi parce que nga rey ñi yàqal ñëpp baa doole lañ benn patron bu ko ñoom gisoo leen hmm. donc ñu bàyyi ñu xel daal ci li ñuy def vraiment c'est c'est sérieux métti na jaajëf ok jërëjëf merci beaucoup tawfeex gis ngeen ko ba tey fii nga xamante ni moom mooy ci parcelle gis ngeen li nga xamante ni moom moo amee fii nga xamante ni moom mooy ci parcelle boo dépassé 22 euh, fa fële nga xamante ni moom mooy kaas bi ñaaw katu ñaawkatu defkatu ñaawtee fi ñoo dugg si fii nga xamante ni moom mooy benn benn benn euh, transfert d'argent voilà benn transfert d'argent gis ngeen toj nañu lépp yàqate nañu lépp jël nañ fi waaw moom ci li mu xayma nee na euh, bu ko doon à peu près li nga xamante ni moom mooy machine yi rek mi ngi koy xayma ci lu toll ñaari million kon mu nekk loo xamante ni lu ñaaw la ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy def ñaaw ñaawteef googu nga xamante ni moom wax na ko gis ngeen lii gis ngeen nii bàyyiwuñu dara dara dara nee amoon na ay ordinateur portable amoon ay téléphone mais gis nga kees bi nga xamante ne moom mooy keesu xaalis tamit lépp la ñu yóbbu maanaam bàyyiwuñ fii dara dara dara dara ñu koy masawu te xam nga gis nga mu nekk lu ñaaw loo xamante ni c'est à déplorer billaay wallaay lii lii lii lii lu ñaaw la lu ñaaw la lu ñaaw la mais booba tey ñu ngi leen koy toppal fii ci parcelle kon ñu xoolaat leen loo xamante ni mi ngi fi comme situation doon nañ doon daje mais ah instant bi dañuy seetlu ni que entreprise privé yi ñi nga xam ne ay doomu dëkk bi ñoo ko moom doomu dëkk bi lañ xamoon nan lañ def tamit ba am seen xaalis ba teg seen entreprise ban ban ban jéego la ñu def ndax dañoo dañoo dañoo dañoo def prêt bancaire wala ndax sax dañoo leb fenn mu doon loo xam ne dafa métti dafa métti lool te nag tamit lu gën a doy waar tamit nguur gi tamit ñenn ñi nga xam ne ñoom yàq nañ leen te te aussi ce sont des personnes yoo xam ne bokkuñu ci politique bi dara ñoom war nañ leen am nu ñu war a def ak ñoom ndàmpaay boo xam ne dañ leen soutenir pour ñu mun a am redressement bi nga xam ne dañ koy mun a continuer waat seen liggéey foog tamit nguur ji jël ci ay mesures ay motukaay yu yu yu yu yu yu grave yu yu yu yu yu yu gaaw quoi en fait waaw nekk lu metti lu ñuy naqarlu lool lool lool lool parce que boo xoolee euh, lii euh, ay xëyul xëy am ko dafa liggéey teg ay briques boo xoolee ba am place bi parce que place ni mu jafee rek Dakar ku nekk xam na place ni mu fi méttee nga am ay matériel jël lépp def ko fi mais ñu xëy benn bés ñëpp ñu la ko verre yi rek dafa cher verre yi rek ñu toj daaji sa buntu dugg jël ci ay matériel yi nga xam ni kenn xamul lan ak lan la mu nekk affaire bu doy waar loo xam ni ñëpp a ngi koy ñaawlu bu ñuy yàq xëy na bu ñu yàq seen yëf parce que lii seen yëf la kii tey papay jàmbur la wala euh, doomu jàmbur wala nijaay jàmbur wala ñoo xam ne yaakaar nañ ci moom dafa war a xëy joxe dépense tey jii nañ xool njabootam googu noonu seen papa xëy tey liggéeyul ban ban ban ban ban impact lay lay am ci ci ci famille bi mu nekk loo xam ni euh, lu lu lu metti loolu la parce que il faut ngay xool tamit fa mu fa mu ak impact bi muy def yëpp mu nekk lu doy waar depuis gis nga yàgg na fii yàgg na fi ça fait plus de dix ans comme ni ngeen ko déggee. Ah, waaw dix ans dix ans d' waaw ah. voilà di nga nee na on est de rien waaw. ba muy ba muy door leer na ma ne leer na ma ne benn benn puxus bu ndaw la yoroon. amoon benn benn ordinateur bu ndaw. muy taaba taaba di jug nànk-nànk. cinq cyber cyber café waaw. maa ngi boobu maa ngi dëkkoon unité unité sek ci famille sec bi fii dama doon gis lii fii fàttaliku naa ko te yàgg na lool. kon daanaka ba mu ko ba ko tegee yaakaar naa ne yàgg na lool te toujours ma ngi doon góor góorlu di ñafe laay fam ba ba ba yàlla def lii mu mujj fii neexul ci xol wax dëgg fa neex yàlla waaw effacé ko à zéro waaw xanaa di ñaan yàlla rek yàlla yàlla na ko yàlla may euh, mu jóg ak jàmm continuer waat liggéey bi comme ni mu waree waaw waaw waaw gis nga dëkkandoo ñoo ngi seede euh, kiyam euh, mbaaxam baaxam ci ci ci ci ci koñ bi kon yaakaar naa ne loolu lu am solo la am solo la. dara. la moom dafa bokk ci kër Sëñ Basiru ndeysaan yaroo ci daara ji moom waaw ñëpp ñëpp xam nañ ko waaw waaye kilifa gu mag la ci biir kër sëñ bi waaw nekk nitu daara léegi boo xam ne fi ñu toll nii waxuma dara waaye ab sëriñ la fi ñu toll nii nii daa waroon a toog fii di jàngale alquran waaw léegi loolu yëpp mu boole ko boole mu bàyyi loolu ñëw di lu fii di ci dimbale ay waajur fi ñu toll nii ñi nga xam ne moom ñoo nekk Touba mu ne ñëpp ay daara lañu yor tey mu leen di dimbale léegi lii ñëw fekk ko ci lu doy waar la metti na lool nag li li nga xamante ni moo ci yàqu nag fi ñu toll lu mu la wax rek ëpp na lool waaw lu mu la wax rek na lool waaw doy na waar tro nag waaw métti na lool fa métti am waaw bu ñu amee ñu leen ko teg loxo it dañuy jël daal. waaw que numéro bi affiché nañ ko. waaw waaw waaw yàlla baax na. Euh, yàlla na ko suñu borom gën a taxaw rek. waaw waaw yàlla na ko nguur gi nga xam ne euh, teg nañ ko coono bi. muy nguur gi muy kaaw ku jëg beneen opposition bi. dëgg la dëgg la nañ ko ñëw taxaw. dëgg la delloo ko li nga xam ne moom moo ko moom la pare. waaw alhamdulilah yàlla na ko suñu borom def. alhamdulilah jërëjëf kontaan nañ ci. kontaan nañ gis ngeen waaw eh, waaw